moom laa le Macintosh l'homme aux maquettes C'est le meilleur président de l'histoire du Sénégal Manam nañ quoi normal sans politique moi je suis pas un politicien moi je suis un artiste comédien yaa ngi dégg maanaam fu ma ko teg maanaam ci image yi muy commencé di def Sénégal parce qu'il est né après l'indépendance si je ne me trompe pas il est venu faire la mutation au Sénégal maanaam boo déggee mutation un changement

mais lépp lu mësa a dina dina dina dina dina waw ki toogaat président yàlla dafa ko jàmm keneen lay doon yàlla ko yàlla def keneen ak keneen ak keneen yàlla nekk sax lawé mu ne nekk sax man le lampita The Lampita.